ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلتي بكي العبادة والخدمة نجلن دي نيو دي لين زيار di leen masawu it coono di leen jaajëfal di dellu si ci sunu bindu tafsir muy pirim alquran ci aw dégginam sunu bindu tay bi nag di bindu juróom-benneel ci ndoortel suuratu baqara di saaru nakwa di saar woo xam ne li ci nekk ci ay ngëneel nekk ci ci ay atte nekk ci ci ay nettali ak xew-xew ak xibaar yaatu lool lii di julli sunu boroom leeral ko ci te julli mooy lan mooy ñaan buñ ko tekkee ci làmmiñu yaaram muy arab julli gi ñu farataal li tax ñu tudde ko julli muy sala ak jokkoo doon goo xam ne dafay nekk ci diggante nit ki di jaam bi ak boroomam te it jaam bi muy kii julli dafay sàkku am ab yool ci jëf jooju mu muy jëf di ñaan suñu boroom mu fajal ko ci ay aajoom yooyu feeñ na wala yu nëbbu muy zahir ak baatin ci àddina ak ca àllaaxira wa mimma razaqnaahum yunfiquun ñuy dépenser manam di génne ci alal ak wërsëg wi ñu amee di ay koppar wala daal loo xam ne day jóge ci ñoom di jëm ca ña nga xam ne ñoo ko yeyoo ñoo ko jagoo mu am nag joxe goo xam ne nit ki bu koy joxe loolu dafay doon farata ci moom muy loo xam ne yàlla daf koo digal ni na ko joxe farata nag mooy loo xam ne bu ko jaam bi defee mooy ndigalul yàlla dana ci am ab yool waaye bu ko gàntalee it dana ci am ay daan yu tukkee wala yuñ ko tëkkoo mu jóge ci sunu boroom moom mi joxe ndigal li moo dige ab neexal di tëkkoo it ci mbugal walla ay daan yoo xam ne dina ko teg ka jëf jooju kon nag ñi nga xam ne dañuy joxe ci liñ leen wërsëgal ndax wërsëg moom yàlla moo ko dénk jaam bi lépp yàllaa ko boole moom waaye kenn ku nekk am na ay portion yu mu ko def kenn ku ne mu dénk ko ca dara dénk keneen ka dara lépp ngir rek nit ñi mën a jariñante mën a dugglante te loolu rek mooy li tax diine jóg mu ñépp di jëfandoo di tegandoo kenn matul waaye kenn ku nekk la mu desle wala la mu yëg moom kat am na ca am ndes bu ñëwee ca mbokkam wala moroomam moroom ja mottali ko moom it mu mottalil ko loola ndaxte kenn nattable wut ne ku yoroon alal bari la ko lool waaye bëgg naa sottal dara te loola jàngu ko woon wala mënu ko wala amut xaralak def ko su boobaa it coonaa fay bari rek waaye jëmmi xaalis ba moom walla jëmmi koppar ya wala koom ma doonut lu koy mën a fegal walla mu fanqal ko loola kon nag ñi nga xam ne dañuy joxe ci li leen yàlla jox di ca jënd wala di ca fàggu ab yool boo xam ne bu ëllëgee danañ ko fekk fa sunu boroom te alal jamu fa bàyyi loolu ci génn dana tax mu sell dana ko ñoŋal dana taxit mu barkeel kon nag alal ku yàlla di dimbali jox ko ko bu ko joxee ba noppi da koy fegal nag euh, mu di ca nay wala mu def ko ci ab xolam ngir alalkat mooy jumtukaay woo xam ne balaa jariñ nit ki def ko wan gannaaw kon nag jëmmi téye gi rek doonut lu koy amal njariñ lu dul ne dafa doon loo xam ne téye ga day téye sàmm ko ak yaxanal ko ak sàkkanal ko ak teg ko ci aw yoon bañ di ko pasar pasare walladina yuminuuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika ñi nga xam ne nag dañoo gëm li ñu wàcce woon wala li ñu wàcce ci yow ak la ñu wàcce woon mu jiitu la te ay téere mësuta dañ di wàcc di jóge ca asamaan ci li ki di war a gëm muy ponki gëm yàlla daf ca bokk téere yi nga xam ne mooy alkutubu samawiya muy téere yi sunu borom wàcce te mu bawoo asamaan lu mel ni téere yi jiitu woon muy soxufu Moussa wala boog soxufu Ibrahim ak Zabour ak Tawraat ci seyduna muusa ak Linjiil ci Seydina Isa alayhi salaam ak lu mel ni Zabour ci Seydina Daawud ak la ca di ay téere yépp kon ngir nit ki ngëm-ngëmam mën a mat ngëm doonut loo xam ne dangay gëm lenn di bàyyi la ca des waaye li sunu boroom bëgg te wax te digle loola lépp la nit ki war a bokk gëmandoo amut luñ cay ronki amut luñ cay tànn amut luñ cay belli lépp rawatina téere yooyu dafa bokk ci ponk yi ñu war a gëm ñi ki nga xamee ne nit ki dafa war a gëm bis penc ba ak la cay xew lépp gëm dogalub yàlla sunu boroom gëm it yonent yi nga xam ne yónni na leen ak lay sart di ponki ngëm yépp kon ngëm gi nit ki war a gëm alxuraan da koy gëm gëmaale mboolem téere yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon donte la am na ci yoo xam ne budul yëpp yit bari na ca wala lënt yaa nga ca mooy na mu wàcce woon moom wala na ko sunu borom wàcce woon ak coppat am na ca wala ay coppat am na ca yu bari lool ba daanaka xam ya ca wér yombatut waaye dañuy gëm ba ko sunu borom di wàcce ak na mu ko wàcce woon moom loola ngëm-ngëm gi dafay bokk ci liy mottali suñu ngëm yàlla wa bil axirati hum yuuxinuuna te ñooñu kat dañuy amuk wóolu ci bis bu mujj ba ndax am na fu sunu borom di wax ne wa inna daara al axirata la hiya al xayawaanu law kaanu yaalamuun ci ankabuut ci aaya juróom benn fukk ak ñenent alaxira te mooy li muy tegtale mooy mujj walla ba mujj kër la fii nu nekk di àdduna dañ koy tudde daaru duniya mooy këruk àddina waaye kër googu nga xam ne mooy gu mujj ga it di àllaaxira dañ koy woowe kër gu mujj ga ndax àddina mooy gi jëkkoon àllaaxira moo ca topp kon moo mujj danañ koy tudde it bis bu mujj ba bis bu mujj ba al yawmul aaxir al yawmul aaxir buñ ko waxee mooy bis bu mujj ba lu tax bis bu mujj ba mooy nii ñuy lime bis ci àddina bis boobu moom la suñu boroom dogal mu nekk bis ba nga xam ne ci àddina fa la yam beneen guddi topp ca xanaa geneen dund la fa sof goo xam ne dund guy béel rekk rek te mooy guy wéy di wéy jëm éternité maanaam ci lu béel kon ñoo ñu nga xam ne nag melokaan yooyu yëpp nekk na ci ñoom te mooy gëm nañu yàlla gëm nañu bis pénc ba gëm nañu téere yi te la leen yàlla jox ña nga cay comp wala di ca nëq wala di ca ñaag di joxe ñooñee kat ulaika ala hudam min rabbihim ñooñee day ñoo nekk ci dëgg-dëggi ak njub njub ga tukkee nag fa seen borom ndaxte nit mën naa teg ay tëralinam ak i doxalinam mu jub lool ci moom waaye ndekete yoo du jub wala mën naa bañ a jub ca sunu borom waaye nag njub gi nga xam ne mooy li sunu borom rëdd te bëgg nit jaar ca mu ne ñooñu kon ku def loolu na wóor ne kon yaa ngi ci njub ga tukkee ca sunu boroom te rek ñaari eh, cummikaay ñoo am walla ñaari làng muy làngu ngëm yàlla nañ ci yàlla boole ak lànguk weddi lànguk weddi nag dafa am lu nekk ci diggante bi nga xam ne xëy na ak weddeem yombuta xam wala yombute leeral te mooy koo xam ne la muy def feeñalu ko doonte la gàntu na sax waaye xolam nanguwut waaye feeñalut ko mu am nag ñoo xam ne moom seen ngànt loolu muy làng ga ñu nekke mooy ne fét lànk bañ li nga xam ne moom la sunu boroom digle te wàcce ko ci ndawam yi jiitu woon ba ci ndawam li mujj muy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon képp koo xam ne jëfandiku nga topp ñii ko sunu borom waxe ne la wóor ne yow yaa nga ca njub ga tukkee fa moom te sarti ngam yépp dafay doon lu mat daldi daje ci jëmm jooju wa ulaika humul muflixuun mu ne ñooñee day gaa yoo yële ñu ne tekk ne ha mu ne hum day ñoom al muflixuun ñooy ña texe ñooy kiilu ñooy ña am réussite ci lépp loo xam ne doon nañ ko bëgg ak di ko wunneen di ko sàkku ame nañ ko nañu ko bëggee woon ca fanu ko bëggee woon mu mat sëkk wala sax nu kawe njort gën a jekk gën a baax gën a neex nañu ko bëggee woon kon ngëm rekk moo mat a def bokk ci kéewu moomu nga xam ne mooy li sunu borom bëgg ñu nekkale ko ko fi la mu digle ñu war koo jëf la mu nu war koo wattandiku war koo bàyyi almuflixuuna ay ñooy almunjixuun ña nga xam ne at mi nañu am nañu réussite almudrikuuna ma talabu inda taala ña xam ne jot nañu lañu ñu sàkku woon wala la ñu doon sàkku di ko fàggaliku ca seen boroom te mu doon ay jëf ak ay pas-pas ci yàlla lu nekk na mu ko waxe ñu jàppe ko noona gëme ko noona amuñ ca deng-deng amuñ ca senn sikki sàkk mu bett leen nag ak ndàmpaay walla neexal boobu di ab yool te mu di sax fa àjjana mucc ci li nga xam ne ay tëkku waate la woon yu sunu boroom doon leen tëkkoo ca lamu tere woon ci ay mbugal ak yana deme kon ñaari cummikaay rek moo am mooy cummikaay luy tegtale ñi gëm waaye it cummikaay loo xam ne dafay tegtale ñi weddi mu am nag bu nekk ci diggante bi boo xam ne taxut mu leer seen wàccuwaay walla seeni pas-pas muy ki gëm yàlla te al mu'minu ak al yàlla nañ ci yàlla musal muy ki weddi moo xam ci bokkaale la wala mu weddi weddik ñàkk saxal lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi doonte la sax moom ma nga woon ca téere ya wàccoon bu jëkk waaye mu am na koo xam ne day feeñal ngëm ci bu dajeek jullit ñi kookee ñu di ko tuddee naaféq waaye fekk la mu fas ci biir xolam doonut luy dëggël doonutit luy nangu sart ak ponk yi diine laaj ak yamuy tere yépp waaye nag mi ngi defandoo ak nit ñi loolu moo tax ab jullit wala nit ku gëm la muy def ca ña muy àndal wala ka koy jiite roy lay war a doon roy lay war a tudd ndax roy moom ñëpp dañuy bokk fuñ jëm xanaa dafa di rek mënta ñàkk wala wërta ñàkk ku jiite waaye ka jiite la muy def ñu di ko ca topp ñoo koy topp xam nañ ko fu mu rëqi ñu sàbbal ko mu joyantiku ñu wéyal la ñuy def kon wërsa doon rek toppandoo muy gis naa nit ñi di def ma defandoo ak ñoom gis naa ñu bàyyi ma bàyyeendoo ak ñoom sëriñ bi daan ko leeral ci ñetti wirgo yooyu walla ñetti kuréel yooyu muy kuréelu ki gëm kuréelu kii déng-déngi dina feq bi ak kuréelu ki weddi daan ko misaal ci ay picc ne ki gëm toor toor la te mooy picc yu weex yooyu tàll wala tàll nga xam ne amul dara lu ko rax lu ñuul waaye mu amit koo xam ne moom dafa weddi muy picc mu ñuul moomu ñuy wax ndobin waaye ki nekk ci diggante bi it nag nga xam ne moom kenn du xam fu mu koy féetale muy picc mi ñuy wax piccum naat nga xam ne day am tomb bu ñuul am tomb bu weex wala dunq wu ñuul am dunq wu weex wala sax yeneen yu cay rax ca biir mu misaalaat ko ci maska yi nga xam ne day tegu ci xarafi arab muy alfatxa wa damma wa sukuun maanaam maska get nga xam ne day tàlli ñareet muy ki gëm nga xam ne moom mbiram dara dëngu ci ci njub rek la nekk waaye mu am mask lonk di masque goo xam ne dafa dëng waaye mu am masque ñeek nga xam ne moom dafa wërngalu mu fenn fu mu bënn kon masque get gi mooy ñi gëm yàlla te tegu ci aw yoon weex tar ni tóor tóor masque lonk gi mooy ñi déng déngi xam ne lañuy wax duñ ko defe nañu ko waxe lañuy ñuy bàyyi lu it du nekk ñu di ko bàyyee nañu leen ko tere kon boobu ñaar moo ciy mën a am benn ci yaar yooyu mooy ñu tàllal ko mu fekki bu jëkk ba raxasu ba set ca sikk ak yu gënut ya nekkoon ci moom di yu biire ak yu bittee bu ko defee mu bokk si ci géewub muminuuna xaqan di ñi gëm yàlla dëgg-dëggi ngëm wala genn catu wala boog wenn wala boog lenn catul lonk ba daal di dajeeg beneen lonk ba ca des mu dib néeg mu ñibbi ca ndobin ci missaal bu doon naata dañuy waññi tomb yi bu ca ëppale rekk mu àgg dem ñibbi ca kuréel googa suñu wàññee weex-weex yi ëpp maanaam defaru na jéem naa jag ba ak mbaaxam ëpp muy tomb yu weex ya ñu ñibbal ko ca kuréel gu jub ga waaye it suñu waññee xool ne tomb yu ñuul ya moo gën a lëw moo gën a yay ca yu weex ya it mu daal di ñibbi rek ca ndobin ni ci lonk bi di doone ab wërngël mu ñibbi ca la wërngëlu woon te moo di ak kéefër yàlla nañ ci yàlla gën a musal inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum laa yuminuun ñi weddi nag nga waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom xupp leen ak ñàkk leen a xupp mooyam ci ñoom duñu mas a gëm ndax lan xikma da cee nekk boo xam ne sunu boroom xam gi mu xam la jiitu liy teew ak lay xala ñëw xamal ko ne ko kat ñetti kuréel yi moo am bu jub nangu gëm di topp yàlla ca na mu ko waxe waaye it mu am kuréel boo xam ne dafa nekk ci diggante bi cuguñ cagañ waaye mu am boo xam ne moom kenn du man ci ñoom dara bu ñu la yeexal sa dox waxal li nga war a wax rek te jàll ñoom lañuy gëm gëm nañ ko lañuy jàpp jàpp nañ ko fa ñuy fare it fare nañ fa mu di lañuy tuddee yéefar ñooñu nag kon naka la ñuy nekk ak ñoom mooy rekk bañ fa nekk di dàggasante ak ñoom bañ faa nekk di ŋàññante ak ñoom waaye mooy ci diine ji nga xam ne sunu boroom indi ko te muy dëgg te ñu war koo topp wara def ay digalam wara itam bàyyi ay tereem yéefar nag arab yi daan nañ ko tuddee guddi wala nit ku lëndëm ba léegi da ngay dégg ñu naan nit a lëndëm banu israil ak ahlul kitaab te buñ ko waxee mooy waa kër lenn ci sayduna Musa ak sayduna Isa alayhim salaam ñu ci bari dañuy nëbb lii seeni téere waxoon ci dikkuk yonent bu mujj bii am na ci ñoo xam ne xëy na ba ñuy jot ca téere fekk na soppi nañ ko wala am na luñ ca soppi ba jotatuñ ca na mu meloon waaye ñaga xam ne xëy na xam nañ ko ca wala am nañ cak teqantal wala leeralit ñu ci bari dañ koy nëbbu duñ ko nangoo fésal duñ ko nangoo firndeel ngiree jàpp ne xëy na nettali baaxuk wala mbaaxuk kii di mujj ñëw bu ko nit ñu xamee amaan na ñu bàyyi leen wala ñu sikkal leen wala nañu doone woon ay kilifa ce lañu nekk xëy na kii bu dikkee bu ñu ko nangulee mën na leen a xañ ya ñu amoon muy seeni privilège te loolu dafa doon loolu bakkanub doomu aadama daf koy bëgg mooy lu baax saa yu dikkee ay nit nekk ca muy am coppat di ruus ba yàlla indiwaat lu gën ña ca amuk defaru dëgg-dëgg ñooy nangoo ànd si ak la nga xam ne moo mujj ñëw te gën a baax waaye nag ngàntal walla gàntal lu suñu boroom diglé ak lu mu teg ku ko ca yàlla na tooyit ba mu def ko xañ ko yiw rek yàlla nañ ci yàlla musal la koy def ak soril ko yërmande إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون البقرة laaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñenent kon alxuraan dafay firi boppam te loolu mooy piri mi gën a wér mooy prix mi gën a wóor ndax mbir muy mottalente la ñi nga xam ne dañuy nëbbu li yàlla wàcce ci ak njub ñu fekkoon ko ci seen téere wala ci dénkaane wala nañ ko nettalente woon di ko toxalante waaye ña ngay jéem a làq ak a denc ak a nëbbu li yàlla bëgg mu feeñ te digal ñu feeñal ko ñooña day yàlla dana leen rëbb te rëbbum yàlla mooy soril ko yërmandeem te it yàlla moom bu xasee rëbb am na ci jaamam yi muy gaa yu baax yi di ay malaayikaam ñooñu dañuy topp di rëbb te mooy ñaanal kooka ak di ko moolu mu sori yërmande yi yàlla kon nag nu yamandi fii ci bindub tey bi ba beneen ci bindub juróom-ñaareel bi ci topp incha allah ñu ñaan suñu boroom mu nangul ñu te defal ñu tawfiq sàmmal nu sunu kilifa yi wéral leen may leen mucc akuk tal te may nu dégg ak top asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yow miy topp sunu waxtaan yi jamono ju nekk dangay bës kolos bi ngir abonné ci al ibadatu wal xidma. ngir ngay am na mboolem waxtaan wi jóge ci al ibadatu wal xidma da ngay bës kolos bi ñu bind abone mboolem lu fi jóge rek da ngeen ci jot.